halaan bikum ñaareelu daa la bëgg nga ñaanal ma ma xam ko yow xalifa général des mourides du samay kàddu njiit réew mi Macky Sall moo ko wax ni démb ca dëkk bu sell ba Touba Mbàkke si du quotidien moo ñu ko xamal turbine yéen a kaay na Macky kay li mu bëgg leer na ndigal la soxla ci xalifa bi mu jox ko taalibe yi ñu watal ko ci 24 heures yéen a kaay Macky nee na ko maa bëgg a toogaat ci réew mi ci le quotidien njiit réew Macky Sall nee na xalifa général des mourides Serigne Mbàkke wote yi di ñëw maa bëgg a gàddu ndam li waaye a ko Royal Serra. nee na ko dégg naa li nga sàkku ci man waaye man tamit maa ngi lay bàyyee ku tedd ki Serigne Touba njiitiram Macky Sall ëlbati na ko waa baax na yow tamit na nga xam ne man danaa la jàppale ci tabax gi ngeen bëgga a tabax université islamique fii ci Touba ba tey kaay bi ne njiitiram Macky Sall nag démbu teeru nañ ko teeru bu rëy ca Touba askan wa génn mbooloo mu bëri xalifa général des Mourides tamit gërëm na njiitiram Macky Sall ci taxawaayam ak liggéey ya muy amal ca dëkk bu sell ba Touba Mbàkke Touba li Macky bëggoon ñu wax ko waxuñu ko de ay joxe nañ ndigal ak na la taaliba yi watal ak wala 2019 yaay gàddu ndam leeg loolu dara la ci Touba waxut ñoom daal xam nga nuñ def tëddee njaaxaanaay na ko ñaan yi ngay ñaam demal nga ñaan ko Serigne Touba turbine yéen a kaay kay lañ def xam nañ ko de dañoo teey ndax xalifa ba joxewul ndigal l'observateur nag di ñu xamal kan mooy xalifa général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké histoire am jaar-jaaram dundam yéen a na ak ñun ayaw seetal góor yàlla la ku xam gëm-gëm te ku xamit lu mu bëgg la yéen a na ma moom ñeenteelu doom la ci soxna soo xam ne tijaan la te moo jiite tamit bi ñuy jullee sëriñ saalihu ci ndigalal ki fi nekkoon juróomu xalifa bu sëriñ Tuuba ay seede yu daw yaram nag moom la soxnaam soxna Baali Mbàkke def ci yéene bi yéene bi di wal fajiri moom ñëw ak ñun ci sëriñ Muntalaa Tayibu borom dër bi ak doomu sëriñ Tuuba yi nga xam ne jotu ñoo ci jal bi maanaam nekk xalifa te mooy yéene na ko man daal li ma leer mooy sëriñ Muntaxa Seck ak Serigne Moussa Nawel weesu na sax politique kon kuy wax na xam li ciy wax la mu wax moom wal fajar yéen mooy autoroute Ila Touba bi door na ay accident te demaguñ fenn ma dem ci enquête yéen fekk fa mbootaay xàttekat yi ci Sénégal UMS fas yéene nañoo taxaw def seen kémb kattan ba ñëw 2019 lépp leer jaar yoon ayaw seetal USAID lañ cay lëkkaloog seen njiit la Souleymane Teliko ne fas yéene nañ ci xar seen tànk tukoy ngir ñu am woto yu leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne Ablaye Wade am na ñett ci ay alalam fi mu toll ni àttekat bi joxe na ndigal ngir ñu teg ca loxo maanaam nangu ko ngir Viviane Wade mën a fay waa NCA libération moo ñu ko xamal li mu ñu xamal moom laa séene kaay mooy ne Sénégal daal gis nga yi naroon naa gën a continuer ci fa ñoo rëcc am sens ndax waa bu ñu war a fay keneen ku a Ciss bañ koy tuumal ne moom la randal du kenn ku may président conseil départemental bu diwaanu Fatick Oumar ko loxo les ko a kaay ñu ko xamal këpp kees ñaar fukki million yu waroon a tabax donte mujj nañ ko bàyyi waaye nar naa jàkkaarloog attekat ba nag kanam yoon keneen ku yoon tegoon loxo ca Kaolack ndangaan mooy benn waay boo xam ne daal fa dem ca dal waayu jàngu ba église cathédrale bu Kaolack ndangaan raja xoxo tojate ko seen statue mu toj ko ba mokk yàqate fa turbine yéen a kaay ñu ko xamal enquête a kaay dëggal xibaar bi ko jëf yu ñaaw na naqari mooy dal waaye jàng waru faa am jumaa lañ fa war a def ba ko police yi tegee loxo nag ay xibaar jib na ne ndekete yoo waa ji ab tut maanaam xembut fa manki xàndut ak xelam ñi war a ànd ak seen xel nag ba buñ demee ca màggal ga xam na loo xamante ren fañ koy tere ca biir jumaa ja ak xabru ya ayaw seetal vox populi moo ñu xamal ne wàllu selfie ay Snapchat maanaam jël téléphone di filmer vidéo di ca feeñ di wengo ko daarlu filmer ay ku ko def ca biir jumaa mag ja Touba ci màggal ak ren gii wala ca xabru ya da nga ko wax ku la ko laajut de fañ koo tere képp ku sàmma wut nag ak war mooy dëkk ba ci màggal gii gaaña danañ ko digaale ak yow bernde lekk yu bëri yu neex ya ma fay dégg ragal naa dañ ca bëgga lekk mu tëla de